salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ñu ñëw ak yéen ci leeral ci mbiru Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly day dem Barcelone Kalidou Koulibaly est-ce que dina jugee Napoli waaye laata loolee nag ñuy ñëw ci leeral gi ñoo ngi ñaan kuy gan ci page bi te abonné goo nga abone bés kolos bi nga xam ne lu ñu dugg rek di nga bokk ci ñu koy njëkk a jot. ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi xam ngeen ne Kalidou Koulibaly képp kuy sénégalais yéene nga ko mu am club bu ëpp doole Napoli googee mu nekk même ñi nga xamante ni duñu ay sénégalais sax yéene nañu ko Kalidou Koulibaly ci njàmbaarteem ak xarañam ak man la muy def ba noppi bëgg ko loole nag jamono jii ma ngay xeeñ neex li ko waral moo di kat Barcelone ka di tàggat di Xavi choix numéro un maanaam tànneefam bu njëkk ci défense boobee moo di Kalidou Koulibaly la mu wax la Laporta lu leer la Kalidou Koulibaly képp laa bëgg jamono jii nga indil ma ko loolu nag Mundo Deportivo moo ko waxoon ca fan yële weesu waaye tey jii Sky Sport Italia daf ko dëggal Asit nekk ca Madrid def koo dëggal ne waa Barcelone fan yii di ñëw dina dinañu waaj benn offre ngir dem ca De Laurentiis De Laurentiis mooy président wu Napoli toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ngir jënd doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly la ñu noppi nag ngir yóbbu ko ci xaalis mi ngi toll ci trente cinq millions d'euros ba quarante millions d'euros ngir am doomu Sénégal bi. kon nag ñun sénégalais yëpp nañu ñaanal Kalidou Koulibaly mu am club bu mag comme daawkat am na club bu mag bu ñëwoon bëgg ko muy mën sa Manchester United waaye loole yembul woon ndax waa Manchester United dañoo jënd Harry Maguire quatre-vingt-dix millions mu nekk défenseur bi gën a seer. ñu dem ca waa Napoli toog ak ñoom ne leen Kalidou Koulibaly laa bëgg fay ci soixante millions d'euros te soixante millions d'euros yooyee ñu faykat munoon nañu fay li ko ëpp loolee moo tax De Laurentiis mere leen ne leen défenseur bii ngeen jënd muy Harry Maguire mënul Kalidou Koulibaly li ngeen def ci moom muy quatre-vingt-dix millions su ngeen ko deful ci Kalidou Koulibaly du fi jugee loolee moo tax Manchester United mujj ko woon jënd daaw ren jii nag ñaari mbir yi mën naa yombal mbir ma ba ca njëkk moo di Kalidou Koulibaly contrat la ca des chance bëreetul beneen bi moo di Kalidou Koulibaly bëgg naa jóge ca Napoli ndax yàgg na fa bërki démb sax stade di yéenekaay dalal na ko muy xamle ne moom yàgg gi mu yàgg Napoli sax daf ko jaaxal te bëgg naa soppi club kon nag ñaar yooyee mën na ko yombal Kalidou Koulibaly daal jamono jii mu ngi ci marché des transferts bi Barcelone bëgg na ko waaye tamit Paris ña ngay xerawlu ca wet ga ñoom it bëgg nañu ko bu Barcelone lajjee ca mbir moomee rek ñoom noppi nañu ngir dugg jël doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly Coulibaly gaa ñi ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba ci kanam tuuti ak xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram incha allah